الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala di ko ñaan mu julli ca suñu yonente ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ak i saxaabaam ak ñi nga xam ne ñoo koy roy ba ila yawmi diin gannaaw loolu mbokk julit sunu xutba tey bi ñu ngi ko nar a jëmale ci fàttaliwaat lan mooy jukko yi lislaam yu tedd yi képp koo xam ne yaa ngi xool nit ñi tey rawatina di déglu rajo yeeg télévision yi nagoom ca ña jiite la wala mbooloo mi nekk seen gannaaw dañuy gis lool ay doxalin yoo xam ne sore na lool ak na lislaam gise woon ab julit war koo doxali ca loolu ñun day lii nga xam ne nii mooy suñu diine ji suñu borom subhanahu wa taala dañoo tànnal ab royukaay muy suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju allah wal yawm al axir wal yawm al axir wa zakara allah kasira yéen juri di ñeel na leen royukaay bu rafet ci yonent bi nga xam ne yónni naa ko ci yéen ci ki nga xam ne bëgg na am ngërëmal yàlla bëgg na alaxira mu doon aji texe loolu tax ba ab julit dafay góorgóorlu jéem a xam lan moo nekkoon dundinu yonent bi lu nekkoon jukkoom mu jéem koo jukkowoo ngiree mu am ngërëmal yàlla ngiree mu yeyoo ajjana yu kawe ya suñu delloo sallallahu alayhi wa sallam ci am njàngaleen bokk na lu ñu doon wax mu ne xam leen ne day jullit du noonoo ak moroomu jullitam bu ñu dajee ku nekk du mooyu xam leen nag la nga xam ne moo ca gën mooy ka nga xam ne moo jëkk a nuyoo ngan la way noonoo ba bu munta ñàkk bu mu paase la nga xam ne mooy ñetti fan rasul sallallahu alayhi wa sallam daan ñu ñaax ci ni ngan la way nañuy tasaari nuyoo nañuy joxante ay loxo ca loolu ñan ca jublu góor ak góor ak jigéen ak jigéen mu ne day amul ñaari jullit yoo xam ne daan daje daajunu yónte ku ne jox sa moroom loxo lu dul balaa seen loxo yaa teqali ko mboole mi bàkkaar yàlla baal leen ko noonu la islaam ñaaxi ci ñu moytu lépp loo xam ne day indi ñagg-ñaggi xol diggantey jullit looloo tax ba mu ne bu ngeen nekkee ñett ci benn place bu ñaar ñi mukk wax wax joo xam ni ka ca des xamu ko na doon dañoo déeyoo wala dañuy làkk làkk boo xam ne ka fa nekk xamu ko lu dul ne dañoo dem ba dugg ci mbooloo ma yeneen ci boobu sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xam ne nii sàkku na muslu ci yàlla ngal la way musul leen ko ca loolee mu doon ragal képp koo xam ne ñëw na ñaan leen ci yàlla tax ngal la way jox leen ko te yàlla tax képp koo xam ne def na njëkk ci yéen fexe leen yii nit ñu ngeen defe njëkk jëm ci moom bu dee dem ngeen ba amu leen benn njëkk mu ne ñaanal leen ko ba moom mu yëg ne kat ñaan yii nga ko ñaanal dëgg dëgg fay na njëkk ba nga xam ne defaloon na la ko mbokk julit suñu diine jii day lañu xam ne dafay woote ci jikko ju rafet lu waral loolu mbokk diine ji ñi ci nekk ñoo war a woo ñeneen ñi ca woo bañ leen di woo dañ leen di woo ci seeni wax waaye lañ leen di woowe ci seeni jëf moo gën a màgg looloo tax tey mbokk ana lan la adduna bi perte mooy yéeféer yi ci ñàkk dugg ci lislaam lu bari la ko waral mooy jullit ñañ dajeel ñeewu ñu seeni jukko ñeewu ñu mel ne ñoom ci noonu la ñuy déggee lislaam bañe ci lislaam fekk jànguñu sax lislaam loole mbokk da ngay gis musiba bu rëy la buy dellu ci jurit bi waaye mu yem ci moom day dellu sax xartaa ci yéeféer ya loolu tax ba yow mbokk jurit xamal ni da ngaa war a nekk royukaay boo xam ni képp ku jëflanteeg yow gis ci yow ak njub akuk mbaax su xamee ne julit nga mu seedeel ne julit ñi day nii la ñu mel allah yi suñu benn mbokk prix mi ngay wax fii nee na dañu dem ci benn magasin ci Chine ñu def fa benn commande daañu ne suba daañ ñoo fay waaju na ko mais est ce que yéen da ngeen ñoo fay waaju nekkul na ko ñii ay élage lañu te ñoom dañu wax musulman élage ñii lu ñu la wax rek loolu moo nekk ci ñoom ndax colub l'islam ñu gis ci moom waaye boo ko xoolal kooku bu doon dañ koo war beneen julit war ko ndax dana seede loolu déedéet looloo tax ba mbokk julit jukko bu rafet ba ngay comporté woo day jeexital ci yow jeexital ci julit ñi jeexital ci xamtaa yéeféer yi mbokk ngir ñu am cexe adduna cexe allaxira fokk ñu am jukko ju rafet nañ dem dugg ca jardin ba yonent bi wane woon ni lii mooy jukko ju rafet ñeneen ñu man faa witte ñeen ñeent yoo xam ne danañu tax a texe adduna ak alaxira bokk na lu borom xam-xam yi di tënk ci jukko ju rafet moom mooy nangu mu ñëw doomu aadama yi bokk doomu aadama kum mën a doon dëgg dégg ay tooñ yuñ jëmele ci yow ay lor yu lay lor ki gën a kawe ci ñun tey di président de la république bés bu la ngeen dégg liñ la yàq ci rajo beeg télévision yi waxuma que ñeen ko dul moom sunu borom yàlla subhanahu wa taala gis nañ ay jaamam yi nga xam ne lu ne defal na leen ko teewul lu ne wax nañ ko ko jëmelu ko ci moom subhanahu wa taala ay yeneen tam la ko noonu kon jaam bi yëpp nga doon koo xam ne da ngay mën a muñ lor yi jóge ci jaam yi ñaareel mooy nga doon koo xam ne nii da ngay nooy yomb ay mbir ñeel jaami yàlla yi sunu yonente salallahu alayhi wa sallam day yaay Aïcha nee na benn jaam bu ñuul daana jóge fële ñëw na yonente bi alayhi salaam yow laa soxla woon yonente bi jóg mu dem yóbbu ko ci aajoom ni ngi noonu salallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy ki nga xam ne it borom jukko ji rafet ja ki nga xam ne dana fexe bay di leeral kanamam di sellal la nga xam ne ay waxam loolu ab tënk la bu ñu tënk waaye bu ñu delluwaatoon ci a xool ndax jukko ju rafet yàlla kuy binde nit am doomu aadama da koy sabbu na am mbokk ñaar yépp am na am na ñoo xam ne yàlla rek moo rafetal ci ni jukko yàlla na yàlla boole ñu ca ñooñee benn sahaaba ñi ngi nii ñu koy wax al ashja abdul qays yeneen ci bi dana ko cay ashja yaa ngi ñaari jukko yu yàlla bëgg lool yow day ku lewet nga te yow ku teey nga mu ne ko mu yow mi yàlla yónni ndax loolu maa ko faggu ba mel noonu am yàlla ma ko bindi mu ne ko déet yàlla moo la ko bindi mu ne ko day maa ngi sant yàlla mi ma bindi ci jukko yi nga xam ne moom la bëgg na am bokk julit waaye itamit doomu aadama bi it dafa war a xam ni war nay entraîner boppam di tàggat boppam ba li nekk ci moom ci ay jukko yu dëng mu jëm koo jubbanti yonent bi salallahu alayhi wa sallam kii di anas ibnu malik mi ngi nettali nee na lenn ci waa ansaar yi ci kaw kaw ya ñëw nañu daal di koy laaj yonent bi jël jox leen ñu wëlbatikuwaat ñëwaat laaj yonent bi jël jox leen ñetteel ba mu ne day wax dëgg yàlla lépp lu ma dencoon jox naa leen ko su ma amoon lu ma leen jox jox leen ko waaye maa ngi leen di seedeel ni képp koo xam ne jéem naa fegu yàlla subhanahu wa taala dana ko fekk te mooy koo xam ne jukkoo ma ngay jukkoowoo ci ni lépp loo xam ne lu xaram la lépp loo xam ne yeeyoowu ko du ca yóbbu bakkanam fokk yàlla may ko lu mën a fegoo mu ne leen képp koo xam ne jéem na woom le yàlla dana ko may lu woom koo xam ne doyloo ko na la yàlla wërsëgal mu néew ko bari xooloo keneen xalaatoo keneen la nga yor fokk mu doy la mu ne leen ne képp ku jéem a tàggat boppam ba pour bokk ci muñkat yi yàlla dana ko boole ci muñkat yi te xam leen ne doomu aadama day amul lenn lu gën a màgg la nga xamee ni nii mooy mu bokk ca mun kër ya loolu kon muy wane ni julit wa del góorgóorlu yaa gën a xam sa bopp ci jukko yi nga xamee ni nii du jukko lislaam te yow yeggagoo ca ngay xool naka ngay def ba yegg ca waaye jukko yi nga xam ne it lislaam dama naan ca mu nekk ci yow ngay xool naka ngay def ba jéem a teqali ko ak la nga xamee ni nii moom mooy jukko yooyu mbokk julit bu ñu delloo ci téeram yàlla bi suñu borom day moo garantil sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko ay yow yonent yàlla bi day yaa ngi ci jukko ya nga xam ne mooy jukko ya gën a kawe na am sallallahu alayhi wa sallam mooy ki gënoon a rafet ñëpp jukko moo taxoon ba sahabaam yow bëgg gën ko bëggee woon jéggi dayo waaye moo taxoon it yàlla subhanahu wa taala def xatta avant mu koy yónni mu waa Makka moom lañ gënoon a bëgg ngir jukkoom yi rafet ya avant muy woote diine yi mbokk ñi ragal yàlla te nar a dëkk àddina ëllëg suñ borom yàlla tagg na leen ne leen mooy ñi nga xam ni dañuy dépense te lañu am na doon riche lañu wala ay pauvre lañu waaye mooy ñi nga xam ne dañuy nëbb seeni ner ña nga xam ne dañuy jéggal doomu aadama yi te nga xam leen ne yàlla day day bëgg ci ñuy rafetal lii ay aayal yëpp yoo xam ne dafa jëm ci la nga xam ne mooy jukko di rafet suñu borom yàlla yi dañu xamal ne képp koo xam ne nii yaa ngi baal doomu aadama yi la nga xam ne mooy toon dañ la toon ak da nga amoon ci ñoom suñu borom mu ne fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah képp ko baale ci yéwénal day ay fayam day dellu ci yàlla loolee mbokk gis nañu ne borom bi subhanahu wa taala moom lay wax ci loolu bu ñu delloo waate it mi ngi naan ñu ana kan moo gën a rafet ay kaddu ci ki nga xam ne dana woo nit ñi jëme ci yàlla waaye di def lu baax daal di ne man ci jurit ñi laa bokk suñu borom mu ne xam leen ne lu baax ak lu bon du mën a yem ki nga xam ne dafa jóge fële ak jëfam ju ñaaw ak waxam ju ñaaw ngal la way yow lay jóge ci yow la doon lu rafet su boobaa day da ngay gis ne ka nga xamee ni nii moo lay def lu bon nga koy def lu baax balaa yàgg gàcce dana ko jàpp dana tayyi wala bëtu ko nekk xarit bu la jege suñu borom yàlla nag ni lii day kenn mënu koo jot lu dul koo xam ne daa bokk ci ñuy muñu kenn mënu koo jot lu dul koo xam ne borom cër bu rëy la loolu itamit mbokk am na benn aaya boo xam ne borom xam-xam yi dañ naan dafay tënk mboolem baax may ci borom bi di wax naan qul bil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin ay yow jaaral yoonu jéggale deel jéggale lu baax te ñi nga xam ne xamuñu dee leen bàyyi bu leen topp loolu moo tax ba ki nga xam ne day dafay joxe xañ la yow bay joxe jox ko ki nga xam ne dalaa dagg soo mënee jokk ko ki jéng jëm ci yow rafetal jëm ci moom loolee mbokkoo jukkoy lislaam la doonte ne yaa ngi koy commencé ci sa yowu tànk yowu tànk mooy sa famille suñu borom subhanahu wa taala ne ay yéen jullit ñi am ngeen ci ñi ngeen di séqal dencante na doon seen borom kër yi la wala seeni soxna lañu dana ca am ay noon ñeel leen waaye nag suñu borom mu ne wa in tafu wa tasfahu wa taxfiru fa inna allaha gafuru rahim heure bu ngeen jëlee yoonu jéggale jël yoonu bare xam leen ne day suñu borom kuy jéggale kuy bare la suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam suñu yooyu Aïcha ne musul dóor soxna musul dóor surgaam musul daaw def lenn loo xam ne da koy fayu ci boppam allahuma lu dul xanaa koo xam ne daa xotti war mooy yàlla day su boobaa kenn daawul mën a téye meram ca loolu it mooy yow borom kër doonal ku rafet jukko ci sa biir kër di bale di jéggale ci lépp loo xam ne sa mbiru bopp la ak mbiru adduna la amma bu dee mbiri diina loolu moom da nga koo muumut loolu moom du sa aq bul seetaan mukk kër gi nit yi def la neexul yàlla subhanahu wa taala mbokk xadis yay ñaaxaati di jukko di rafet loolee kenn xamul nu mu toll yonent bi salallahu alayhi wa sallam daara ñaax sahaaba ya naan ay ngalawaay ragalal yàlla foo mën a nekk heure boo yégee def ko lu bon wëlbatikul def lu baax mu far ko te koy jëf leen teel ci nit ñi na nga jëf leen tey moom ci jukko yi rafet mu ne xam leen ne man day yàlla bi ma yónni daf maa yónni ngiree ma mottali jukko yi rafet yi te mooy génn islam fekkoon na fa jukko yi rafet waaye da ngay gis ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dafa ñu woon pour mottali loole yeneen bi yemul woon ci di ko wax yeneen bi dafa nekkoon di ko jëf bis toog na ca jàkkaam ja sallallahu alayhi wa sallam benn kaw kaw jóge fële dugg toog ba mu neex ko rek mu jóg ci benn rukk jàkka ñu commencé saw sahaaba yi yuuxu ko yeneen bi ne bàyyi leen ko bàyyi leen ko ñu bàyyi ko mu saw ba pare yeneen bi woo ko na ko nag fii néegu yàlla la mi ngi noonu dañ koo def pour sabbal yàlla sant yàlla ak julli mu ne ha yëkkati ay loxoom ne yàlla yàlla nañ ma yërëm mag Muhammad waaye nag bu ci boole kenn gis ngeen lu tax ndax sahaaba yi bëggoon nañ ko def lu bon yeneen ci bàyyi salaam daal di ne sahaaba yi gis ngeen yàlla da leen a génne mu bashirin da leen a génne ngir ngeen bégal nit ñi waaye génne leen pour ngeen dàq nit ñi ca bari na koo xam ne nii da ngay gis far naa bañ diine far bañ lañ koy wax ci teroor bu bon ba nga xam ne dañ ko koo tere loolu yi ak na nga xam ne nan nga ko tere loolu moo tax ba bokk julit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu nekk jàngal nañu ko da ngay gis ne ki nga xam ne mooy anas ibn malik radiallahu anhu nee na man day mas naa ànd ak moom ci mbeddi madina yi ñuy ndax mu mujj rek benn kaw ko dox ko gannaaw xot ko ci gannaaw ak yére bi ba yére bi jeexital ci baat bi mu ne ko hey yow muhammad yow yonent yàlla bi xiiwul gi yàlla teg sa loxo jox ma ci waay yonent bi gees ko xool ko daal di rey daal di yónni ne nañ ko jox ay teraanga gis ngeen loolu ak daraja yi nga xam ne ca la tolloon sallallahu alayhi wa sallam noonu mu ko daan defee ak mag ña noonu la ko daan defee ak gone ya loolu moo tax ba da ngay gis ne sallallahu alayhi wa sallam ay misaalam lu nekk wone na ko anas ibnu malik nee na fukki at def naa ko moom ci biir madina ma nekk xale bu ndaw dix ans laa dugg ci ay loxoom ba ba mi faatu yeneen bi musuma gëdd mukk ne ma lu tax ngay def nangam musuma gëdd mukk ne ma lu tax ngay bàyyi nangam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu ñu xoolee ba tey ca nam daan ñaaxe kii ni usaama ibnu zayd nee na mas nañoo toog ci benn mbooloo wër yeneen bi mu mel ne ay picc ñoo nekk ci sunu kaw am ay arab yu jóge fële ay kaw kaw ñëw ne ay yoon yeneen ci yàlla yàlla kan la gën a bëgg ci jaamam yeneen ci benn leen picc gën a rafet jukko kooku la ci yàlla bëgg yeneen ci moom yi daana wax ne bokk ne ki ma gënal ci yéen te ëllëg dëkkuwaayam ci àddina mooy gën a jege sama dëkkuwaay mooy ki gën a rafet jukko ci yéen yeneen ci bi daana wax ne bu ñuy indi jëf yi jaam yi bi si penc bokk na poids bay gën a diis mooy jëf rafetal jikko daana waxi ci giileem gën a mag mooy ka nga xam ne mooy ci rafetal jikko daan ñu ñaax ni nit day gën a dëkk koor naafila dëkk yi naafila xaaju guddi am benn waay boo xam ne wóorul naafilawul waaye da ngay gis ne ëllëg dana ko romb ci daraja lu tax mooy jukko ci rafet da nga xamee ne moom la yoroon lii lépp mbokk da ngay gis ne ay jàngale la yoo xam ne nii dañ koy gis ci sunu diine ku nekk ci ñun war a boole ci ay ñaanam fu mu mën a toll yàlla subhanahu wa taala rafetal ay jikkoom yeneen ci boobu sallallahu alayhi wa sallam daana wax ay yàlla yàlla nañ ñu yóbbu ci jikko ya nga xam ne moo gën a rafet amul kenn koo xam ne dana fa mën a yegg lu dul koo ca yeggale yàlla na nga dox suñ diggante ci jikko ya nga xam ne moo gën a ñaaw amul kenn koo xamee ne nii dana ci mucc lu dul loo xamee ne nii koo xam ne nii moom nga ci muccal loolu it moo tax ba mbokk nañu góorgóorlu te xam ne bokk na lay baasu jukko bu rafet mooy la suñu borom yàlla santoon bani israil ay wa quulu linnaasi xusna doomu aadama bu bari lu bari ci doomu aadama yi nit ñi bañ leen jëppi nañu leen du lu ñu def de mais seen làmmiñ moo tax nit ñi bañ leen doomu aadama yu bëri nit ñi bëgg nañu leen du sax lu ñuy def waaye seen wax ju rafet moo tax nit ñi bëgg leen looloo tax ba doomu aadama di sàmmal sa lammiñ lépp lu ci jóge di jëm ci jaami yàlla yi na doon lu rafet na doon lu leen di défendre mi ngi noonu loolee da ngay gis ne bokk na lu yëkkati say daraja yeneen ci gis sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne daana wax képp ci yéen ku gëm yàlla te gëm bis fay dina ñëw fal yaqul xayran aw liyasmut lépp lu muy wax na doon yiw ca ca wala mu doon loo xam ne mu noppi la bokk na sarax bi gën a màgg mooy sarax doomu aadama mbokk bi nga wax ko la nga xamee ne nii mooy kàddu gu tey waaye it bokk na lu rafetal diine doomu aadama fexeel ba lu sa yoon nekkul ba ci nekk di xuus mbokk xutba bii boo ko dégloo nga déglu tey doomu aadama yi li ñu mel ci xëccoo ci xaskante ci tuumaalante da ngay xam ne loolu mbir la yoo xam ne safa noonu ak jukko ba rafet avant muy safa noonu ak islam ndax kat même bu islam amul woon yàlla subhanahu wa taala nim binde doomu aadama dañoo rafet waroon rafetal seeni jukko amma l'islam nag dafa ñëw gën koo mottali gën koo rafetal loolu moo tax ba itamit yow mi nga xam ne yar kat nga góor góor lul ci sa doom na am fexe mu jàng l'école ba am lijaasa yu kawe loolu day baax na waaye it am na loo xam ne l'école bi defatu ko de ca mooy yar bu rafet fexe leen ànd ak xale yi day leen topp day leen surveiller di xool seeni waxin di xool seeni gisin loolee ba su xot ci ñoom jukko di rafet loolu day mooy diplôme bi gën a màgg bu doomu aadama di am ci lépp lu muy jàng kii di imaamu malik rahmahullah ba nga xamee ni nii yeneen bi solo yaayam mën ko yónni ca borom xam-xam bu mag boobu di radia def na ko demal nga jàngi xam-xam waaye bala ngaa jàng ci xam-xamam fexeel jàng ci jukkoo ji rafetam loolu moo tax ba lu ci bëri ci borom xam-xam yu jëkk yi suñu daan tànn ku ñuy jàngi xam-xam du ne rek dañuy xool ndax ci borom xam-xam bu rëy la waaye fokk ñu xool la nga xam ne mooy jukkoom yu rafet ndax la chaque ne képp koo jonjantool dina am jeexital buy dellu si ci yow yal na yàlla rafetal suñuy jukko rafetal suñuy jukko njaboot yal na yàlla sàmmal ñu lépp loo xam ne li day tax ñu mu am ngërëmam yal na yàlla rafetal suñuy diggante yal na yàlla laabal ñu suñuy xol yal na yàlla def ñun ak bëggante ak yërëmante yal na yàlla def ñun ku nekk gëne la sa morom ca la nga xam ne mooy ay ngëneel yal na yàlla rafetal suñuy mucc te defal ñu àjjana ngir suñu wàccuwaay اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اهدنا الى احسن الاخلاق والاعمال لا يهدي لاحسنها الا انت اللهم اصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها الا انت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين